Don ay ndawi dëkk bi fas yéene fësal pas-pas ci Touba ak li ko wër loolee tax kuréel gi di Touba ca kanam tàmbale ak jaayante ngir taxaw ci jafe-jafey dëkk bi tey jii mu mel ni cheikh ahmadou bamba xaadimu rasul lii la doon xaar ci ndaw yi murit yi Touba ca kanam entité bu am solo la boo xam ne léegi boo xoolee sax di nga gis ne ci biir màggal gi ñuy wax waxtaan ci télé yeeg rajo yëpp dañuy tudd Touba ca kanam di ko jël comme référence donc kon jaadu na bu màggal ñëwee mu ñëw ba ci point focalu màggal gi fi nga xam ne fi la màggal gi ëpp doole ci côté jumaa ji ñu def fi benn euh, tente def ci ay sièges leeral fi lenn ci liggéeyu Touba ak naka la organisé woo ba nga xam ne membre Touba Ca Kanam yi yi nga xam ne ñi ngi partout ci Sénégal ak ci àdduna bi bu ñu ñëwee man fi ñëw gisanteeg ñi nga xam ne dañuy dëggante de fois te gëj a gisante ndax toujours ñu am ay membre yoo xam ne dañuy gisante première fois la ñuy doog a gisante ci yu mel ni dañuy wax ne liggéeyal sëñ Touba wala jëf lu jëm ci sëñ bi bari ko la ci mbartal da ngay teg sa loxo rek mu dem nga dese sag ba waaye boo tegul sa loxo dana dem su ko defee bu ñuy nettali ëllëg tur yi ña ko doon euh, yóbbu yow doo ca bokk Euh, moo tax rek ñun ñu teg suñu loxo di woo taalibe yëpp ñu teg suñu loxo rek ngir mu dem te xam ne yàgg-yàgg dana mën a mën a dem. bi lépp organisation ëmb ay magi daara ak kilifa yu mel ni Serigne Habib Mbacké ak kii di Serigne Abdou Lahad Mbacké Habibou. doon it ñi jiite bi lépp kuréel la di Touba ca kanam. dafa am ñaari responsable moraux muy Serigne Habib Mbacké moom Cheikh Mouhamadul Fadal. Euh, ak Serigne Abdoul Ahad Mbacké Abibou nga xam ne mooy instance suprême bi gën a kawe euh, bi ci topp li ko waral mooy day doxe ñaari tànk Touba ci kanam mooy euh, association la am na ay këyitam récépissé am ay compte bancaire li def ay contrat loolu wàllu administration la kon tànk boobu mooy mooy boobu ñu ñu ñu am comité directeur am bureau exécutif am ay commission am commissaire au compte Euh, di doxewaat ci beneen tànk mooy tànku ak taalibe ak yoonu murit ndax yoonu murit lu am organisation la euh, euh, boo xoolee li indi dayra ak ni daayira di doxee nga xam ne organisation bu am solo la lépp nag ñu teg ci kaw kilifteef mooy mën nañuy waxtaan di diisoo waaye nag heure bu ndigal ñëwee day mel ne mosuñoo xalaat mosuñoo di mosuñoo mosuñoo diisoo. fii ci wetu jumaay Touba. ñu amal ab exposition maanaam di xamal taalibe yi ak képp ku am lu la ump ci li nga xamante ni moom moo di doxalinu Touba ca kanam nga ñëw ngir taataan ay leeral ci wàllub liggéey bi nga xamante ni moom la kuréel googule di def. exposition bi nag bi kilifa yi waxtaanee dañoo wax ne mënut a ñàkk ndax suñ slogan mooy laaj nit ñi lu ñu man di ko def fu ñu xam nit ñi liñ leen laaj naam mën nañ ko ñi ngi koy joxe. kon day baax fañ koy defit ñu di leen ko leeral rawatina ñi dëkk fa sori am occasion màggal si am occasion war a jaar ci jumaa ji ñu ne kon danañ def tente boo xam ne lépp lu ñu réaliser danañ ko ci def kon li ci njëkk ci objectif bi mooy wane li Touba ci kanam def nga xam ne réaliser na ko ba pare wane waale tamit li nga xam ne nii bëgg nañ koo def tam ne suñ kanam euh, loolu mooy ñaareelu objectif bi ñettelu objectif bi moy massifier nit ñi ñi nga xamni ne si nii doon nañ dégg tuba ci kanam te xamuñu ko wala boog bokkuñu won adhéré wuñu won buñ fi ñëwé ñu expliquer leen liggéey bi ak ni démé ngir ñu manté wu. ren gi nak ñu ku ni kurel gi di tuba ci kanam def kem katanam. ci li nga xamanteni ni modi jafé jafé ndox mi ak li ñu ku it ci li di walu mbënd mi. kii di président bi nga xamante ni moo nekk ci boppuk boobule kuréel xamal nañu bu baax ni Touba ca kanam nii muy doxalee ngir indi ay saafara ci li nga xamante ni moom moo di yooyu lay jafe-jafe. lu toll ne màggalu Touba ak euh, li muy drainer ci mbooloo nga xam ne dañ koy estimer ci 4 millions 5 millions de personnes boo leen dee dalal ci réew mu mel ne Sénégal en particulier Touba ay jafe-jafe du mën a ñàkk jafe-jafe yi nga xam ne actuellement mooy yi gën yi nit ñi gën a bàyyi xel ñaari jafe-jafe la benn bi mooy ndoxu taw yi beneen bi mooy ndoxu nan ndoxu taw yi eh, Touba ca kanam commencé na ci liggéey boobaak léegi war naa mat ñaari weer parce que lancé woon nañ benn opération bu ñu duppee defar yoon yi eh, le 8 août 2020 lañ ko lancé woon def ci ay liggéey yu ama am solo nag eh, bu ñu ñëwee nag ba ci moment yi nga xam ne presque agsi nañ ci màggal gi ci la gëna a feeñe jafe-jafe ndoxum naan donc kon ñaari jafe yooyu mooy ñaari jafe-jafe yu ñu gën a ñu gën a noté bu dee ci wàllu defarum yoon yi Touba kanam da cee def ay mobilisation yu am am solo def ci liggéey yu rëy rëy rëy ndax booy xool ci deux mois yi euh, récolté nañ fi luy toll ak un milliard six cent millions ci ay jaayante murid yi ñoo génn lamb seen i poos jaayante ci bi ñu leen woowee ci ne nañu ànd ak ñoom ñu defar mbeddi Touba yi ndax gis nañ ne màggal gi ci biir nawet lay doon te bari na ci mbedd yoo xam ne praticable neexut yombul nga man fa jaar dem ak dikk ci biir loolu réalisé nañ ci ay réalisation yu am solo ndax def nañ luy tolloog euh, cinq cinq cinq virgule cinq de piste route goudronnée defar nañ ko yoo xam actuellement ni ni ñaa ngi ci oto yaa ngi ciy daw euh, defar nañ luy c'est praticable actuellement des na rek ay finition après magal dinañ ko finir euh, radier submersible war nañ ci defar luy tolloog 2135 mètres carrés ndax dafa am ay points bas yoo xam ne boo ko route non rek du sotti il faut nga def ko radier mooy ciment béton ak ak ak ak euh, lu canalisation defar nañ ci luy 3640 mètres lunaire defar nañ ko ci canalisation defar aussi euh, benn station de pompage bi nga xam ne mi ngi ci côté arrondissement d'Am, fi nga xam ne foofu moo compliqué depuis des années def nañu aussi euh, ci remblai sëkk yenn mbedd yi curé ko décapé ko remblai ko luy tolloog 51 rue ak boulevard mooy mbedd yu mag yi ak mbedd yu ndaw ndawaan nga xamné actuellement fo jaar ci Touba di nga fa gis liggéey bu Touba ca kanam def ci diir boobu. contexte dafa doy waar muy li lëmbi àdduna bi yëpp. Euh, muy loo xam ne si ni suñ génération bi yaakaar naa suñoo dund lu mel noonu xëy na bu dee mas naa am ñu ko dund mag ña lay doon waaye ñun suñu génération bi moom jàngoro ju wër àdduna ba tëj àdduna bi yëpp ñu ngi koy doog a dund. bi mu ñëwee nangu nañ ko euh, gëm suñ borom tey di dund ak moom bi màggal gi gënee jub si nag bi sëñ bi waxee ne nañoo màggal waaye nag nañ respecté li docteur yi wax. ci lañ nekkoon ñu nit danañ màggal waaye danañ defit ni ko sëñ bi diglee mooy lépp loo xam ne si ni docteur yi digle nañ ko ngir ñu mën ñoo musal ci jàngoro ji danañ ko def boo xoolee biñ defee exposition bi ci gannaaw def nañ fa benn antenne médicale docteur yi ña nga fa euh, yor seen i thermoflash di xool température yi euh, yemuñu ca waaye di def consultation gratuite yemuñu ca di maye ay garab loolu ci dispositif yi la bokk boo xoolee ci porte d'entrée bi teg nañ fa benn table teg nañ fa ay masque teg nañ fa gel képp ku ñëw da nga laal ci gel bi ci say loxo bu fekkee am nga masque danañ la bàyyi nga dugg waaye boo amul masque ci suñuy masque danañ la jox benn nga takk doog a mën a dugg doog a def sa sa sa sa visite euh, kon suñu képp lay kàttan ñi ngi koy jéem a euh, respecté ndax euh, danañ ko def ngir ne sëñ bi digle na ko te ñun ci ndigal la ñuy dox ñaareel baat danañ ko def ngir ne suñ borom moo santaane ñuy fegu ci jàngoro ndax jàngoro yàlla moo ko wàccee wàcce tamit la koy faj waaye dogalaat ci diggante jàngoro ak faju leneen muy bakkan bu wàcc liggéey loolu lépp suñu borom moo ko dogal te dañ koy nangu ni ko suñu borom euh, dogale. Touba Ca Kanam fooy du ruutam mooy Matlabul Fawzeyni Sëriñ Tuubaa moo sañ ci dëkk bi ba pare bind téere bu ñu naan Matlabul Fawzeyni lépp lu mu bëgg dëkk bi mel ko sëñ bi bind na ko kon xasiida googu mooy suñ feuille de te damay wax na lépp lu nekk ci xasiida gi rek suñ perspective la dañoo gëm ne ñoo ko war a sottal ñoo ko war a réaliser xëy na nag euh, lépp nag day nekk ci diggante temps espace ak temps. bëgg lu yokk réew mi rawatina Touba doon yëg-yëg akub pas-pas gi ñi feggoo ci kuréel gi nga xamante ni moom moo di Touba ca kanam am doonatul lenn. lu ñuy naatable li des ci liggéey bi bari lool tax ba ñuy woo képp kuy ndaw nga nekk ci mim réew wala ci bitim réew ngir nga ñëw daldi indi li nga xamante ni moom moo di sag njàppale bi ñuy mën a jàppee lii di Matlabul Fawzeyni mu doon ab mbind gu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul daldi defoon